jullit wuy si leen maa ngi woote ci diine ta moo di bi fi doon aw dundin allahu allah allah allahu allah rabbi jalla مخلد ما في قلبي غير الله الله محمد صلى الله يا بيسلك دم تراجع والكتير يلمي لين واتراب يا بيسلك دم تراجع wattu téere yàlla bi lii de doy na naam jug leen ñu sargal gaañi alquraan ñoom ñi yàlla buur bi tànn bay seeni dem ca daara ja wattu lii de doy na yónneen nee na ñi fi gën mooy ñi jàng xam ci di ko jàngale lii de doy na laam daañu jàngi alquran waaxu yàlla bi ngir ñu mën a deexe fii deexe fa ñu jëy waay jug leen ñu sargal gaañi jot ñi yàlla buur bi tànn ñuy waa këram ñi yabal seeni kër dem ca daraja wattu téere yàlla bi lii de na faw tam ñu sargal suñu yaay ju baax seyda madinati yaa ngi bàyyi sawa yàlla yàlla samala yàlla yàlla aar jug leen ñu sargal gaani alquran ñoom ñi yàlla mu di tànn ñuy waa këram ñi ya bàyyi seeni kër dem ca daraja wattu téere yàlla bi lii de doy na ndaa wattu téere yàlla bi lii de doy na ndaa wattu téere yàlla bi lii de doy na ndaa sa jooyloo ñu ne alxuraan ci lan lañ la xamee ñu ne alxuraan kon Miller dafa doon wax mu ne bi ñu xoolee waxuma Miller zone mais tondoo Miller dafa ne alxuraan bi ñu ko xoolee Bakara ba naas gisuñu si turu yaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne lii waxu yàlla kese la Man ndeysan xalé yi dengel liñu wax na jox ciir sama yaay ak lima nek xalé lepp lepp ndeysan ma sha allah nañu awé na li oustaz ñi ci wara a nga wol ma len billahi minas saytafi rajim bismillahi لكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا صدق الله العظيم سيداتي ساداتي أصدقائي زملائي معلم الكرماء خدراء الآباء والأمهات والديوب نحييكم بتحية الإسلامية هائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله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 وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن دل عن سبيله وهو أعلم بالمقتدين صدق الله العظيم هلا رسول sallallahu alayhi wa sallam suñu bu tedd bi nee le messager d'Allah a dit alaykum bis-sidq war yéen si ngeen di wax dëgg il faut dire la vérité fa inna sidqa yahdi ila al-birri ndegete wax dëgg dalay jubal si mbaax parce que la vérité conduit à la gentillesse. fa birr birra yahdi al janna. nekkete mbaax da lay si al janna. la gentillesse conduit au paradis. wa maa yazaalu rajulu yasduqu wa yataxarra asid. nit ki du dañ mukk muy wax ba pare muy yëng si wax dëgg. La personne ne sa jamais de dire la vérité et de continuer à dire la vérité. hatta yaktubu indallahi siddiqan. ba ñu bindal ko ci kanamu yàlla waxkatu dëgg. jusqu'à ce témoigne devant Dieu un véridique. wa iyyaakum wal kazib. maa ngi leen di sorandikuloo ci wax lu dul dëgg. je vous recommande d'écarter du mensonge. fa innal kaziba yahdi ilal fujuri. nekk te wax lu dul dëgg. dalay jubal si nekkam kàccoor car le mensonge mène à la roublardise wa innal fujura yahdi ila naar nekkete kàccoor dalay jubal si sawara la roublardise mène à un enfer wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharra al kazib nit ki du daj mukk muy wax lu dul muy yëngu si wax lu la personne ne cessera jamais de dire des mensonges et de continuer à dire des mensonges. hatta yaktubu indallahi kazzaba. ba ñu bindal ko ci kanamu yàlla waxkat lu dul dëgg. jusqu'à ce qu'on témoigne devant Dieu qu'il est un menteur. fal iyaazu billah. mbokk yi yan samay waajur. yan samay xarit yan samay àndandoo maa ngi ñaan yàlla ñu ci yàlla musal. mes parents mes camarades. Mes frères, mes soeurs, que Dieu nous écarte des mensonges. sur la paix, pardon, amour et paix. Il n'y a pas de paix sans la justice, car il n'y a pas de paix sans la transparence. Transparence et justice engendrent la paix. Il n'y a pas de paix dans la fraude, car il n'y a pas de paix dans la corruption. Corruption et fraude ont tué la paix il n'y a pas de paix dans la misère, car il n'y a pas de paix dans la guerre. Misère et guerre massacrent la paix. Il n'y a pas de paix sans la démocratie, car il n'y a pas de paix dans la dictature. Mais jamais elles n'ont vécu ensemble. Elles ne peuvent produire la paix. Il n'y a pas de paix sans l'amour, car il n'y a pas de paix sans le pardon. Pardon et amour Sauvegarde la paix. L'importance eh de l'école, c'est grâce à l'école que je sais lire, écrire et compter. L'école m'a enseigné le raisonnement. L'école m'a appris que le travail est un trésor. Oh enfants, avertissez vos parents de l'importance de l'école. Dites-leur que vous devez vous y rendre pour le développement et l'épanouissement de votre être. Les enfants non inscrits sont souvent exploités dans les champs, dans les ménages. Et ceux qui sont dans les zones rurales, dont leurs parents manquent de points et ne perçoivent pas les intérêts de l'école, frères, sœurs, parents, dirigeants du pays, luttons ensemble contre l'exploitation des enfants en leur donnant une chance de s'instruire, car l'école constitue pilier de leur réussite. Takbir شاء الله تكبير ما شاء الله أستاذ naan ma juróom ñeenti weer yaay booy may wut laal sa biir yaay booy di la feebar loo ngay wëccu yaay booy di la laati kaafal yaay booy fukkeel weer ba yaay booy man may waajal gën àdduna yow ngay waajal alaaxira yàlla def liggéey nga dikk yàlla def liggéey nga toog nga di ma soo xam ne rëju gay di ma soo xàmmee laa ma teree tee di ma yi ma yi ba mukk yaay boor toro bu dul jeex ak toog ngay jooy may takkal ngay fóot di boor yaay boor ndey sama moo fàtte mukk yaay boor ci kàttal yaay boor moo tax ki yàlla yoon suñu nee na aljannatu takk da ak daa min kon mu ngoog bu seetaan télé boobu dina nekk télé boo xamante ni télé bu rëy dina nekk télé boo xam ne dinañ ko ràññee Sénégal kon premier pas muy Islam TV Sénégal commencé xam seen liggéey yaay booy bég na si yéen bu baax a baax a baax soo leen demee ki nga xamante ni mooy directeur bi di la Ndiaye nee leen waa daara ji sant nañ ko gis nañ tamit aussi li nga xamante ni noonu la def ñëw couvrir li nga xamante ni mooy événement bi ne yaay booy bul jël caméraman yaay booy ne leen am na ay relation démb mënuma leen ci ñàkk boole ñu daal di ñëw jël lépp en charge kon waa Islam TV euh, mention spéciale kon ni nga xamante ni noonu lañ ko defee suñu yaay maam Penda Ba an abi hurayrata jëlee nañ ko ci abi hurayra radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm qaala wax na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha taala yàlla bu kaay bi nee na tayyibun dafa laab laa yaqbal du nangu lu tollu laab naka yàlla digal na julliti comme nu mu digale yonent yi yàlla ubbi ko nee na xeeyal yonent yi lekk leen lu lew ngeen jëf lu baax Allah, Masya Allah. Takbir. جنگل فراسي جنگل ديني اقل بيان وخلين اكل مالك اكل عبد الله مالك مالك اكل بيان آه خالي بجنتي خالي بجنتي خالي بجنتي mag ñi

ها مالك ايقل عبد الله بسم الله ايقل بيا تكبير اجلسوا الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

Allahu Akbar. Waay waay allah. takbir takbir takbir. yow yow noo tudd noo tudd. Hadiza. nee ko man Hadiza. Yo ñaata at nga am. trois ans. sa papa Senka. Senka. la am. takbir dégg ko papa beeg yaay bi ñaari at ustaz. ustaz loolu lu mu lay lay xaaral. loolu lu muy jàngale loolu lu muy jàngale. xam ngeen ni seydaa bi jàngale alquran sonn na. <laughs> xale yu ndaw yoo xam ni. mënu ko uh-huh. ñoo wax wax ju leer. Uh-huh. tey ñu taxaw di jàng alquran. waaye di tari ay suura. subhanallah. Mm-hmm. kon ñu xam ne seydaa yi li ñuy daj. macha allah macha allah kon ku ko baabu ngoog acca kon. islam. Masya Allah. Wajah yang gok bismillah. Nyawal. Hmm.

في ذلك سم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يهلك مثلها في البلاد وسط الرب سار بالوعد صدق الله العظيم yaf'alu Assalamualaikum sonna jenaba Waalaikum salam sonna mam jara Sonna jenaba man kaddama la bëggona la lamay ponkingam Si yonenti Yàlla bu tedd bi li la siwa La la siwa Allahumma wa hattab radiyallahu anhu fi hadisi Jibrila ya Muhammad abirni alil imani hala أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالهدر خيره وشره حالا صدقت رواه المسلم سونا جينا بلوك دفارا بتمدقوا معراب حما والله سونا رامة مفرين لك jëlee nañ si Omar doomi Xattaab yal ko yàlla gërëm si waxtaanu Jibrila yaa Muhammad xamal ma si ngëm wax na na nga gëm yàlla ak ay malaakam ak ay téereem ak ay yonentam ak bis bu mujj ba nga gëm ndogal bu baax bi ak bu bon bi wax na dëggal na muslim moo ko solo soxna maam jaara ba léegi leer na leer na nañ I am Allah, Allah, Allah, Allah, école Abdullahi école Abdullahi école bi yaa neex jàngale alquran jàngale français jàngale anglais bi yaa neex wax leen école Abdullahi bi yaa ma dénk la mbooloo ah, bu benn benn loxo bi rek pour micro bi. ma dénk la mbooloo nga réeral leen ma jox la der bu ñuul nga soppi ba jox la nguur nga foog ne du jeex ma mhm. jox la doole góor mhm. ngay dool jigéen mhm. ma def la góor ngay góor jigéen ma ne la àndal ak góor ngay taamu sa morom jigéen ma jox la njaboot say toosi teen gedd say doom gindiwoo leen su waajur bu góor def ko sa teet ma jox la xam-xam tabaxoo si leen ma jox la koom-koom joxoo si kenn ma jox la laamiñ ngay wër di fen ma jox la xel nga fàtte sa wareef ma jox la xol dugaloo si mbindeef ma teg sa loxo réew lëm nga dëkkee ger ma wax la aljana ak li mu ëmb nga taamu li si gone géeg tànki bis bu ne di ko xeej million nga takk si ceen teg si naan bu ma joxe si neen yéen ustaas yi si mi ñoo sànq xale yi sëriñ beeg kuréel gi dil ma ma ne bukki dofut kala mako ngir am suuf sooro mbee dalay teur gula faale bu doon sax dafa feur ngee mun def bopam beur dum lang la def mi ala la di serignam ragal deug mo ki di nek mbax nga gam ligé na ko sànq bu top borom bi an yu jita la ngay xuus di nelaw bëgg am ay mur yu lay pousse ay ngour ngay fuur doo suur bàyyi nuur ndax buur baaxal boobu gee ñu ne la yaay gor ñu ne ku bëgg a falu foog solos gudd kene di buuru gileem ñu xamal ko ne noppi gudd taxul mbaam ñàkk génn mbokk booy doxte solo mbubb noo def sa biir fee fii nag solo ko guddul ñu ne soyo munoo leen ko ne noppi gudd taxul mbaam ñàkk génn ñuy bàyyante xel moytu di dëngoo moo ti yàqanti leen ndax mbaax bu doon fen nampal ko mooy suñu kenn ki baax sonnul ki bëgg a baax sonnul xanaa ki bon bañ ku baax moo sonn te bii yëkkati kii moo tax ndax histoire muy Seyda Rabitou Cissé mu profito bañoon na sax waaye ñu ne ko mu dalal ay ganam kon ñu bëgg ñu dalal Seyda Rabia Seyda Rabi garmi nga ma ñëw man joobe la bëgg ñépp teral ko سيدنا ننجا سيدنا الجنة يبنينا نجمبر أنا إليفي سيد عربي قرمي سيد ñëpp jug taxaw naan ko jaay mi nga boole di ko teral Seydara boole si teral mi Seydara biya waaw Seydara eh, garmi ah, Seydara biya ah, xaaral ma ñëw nga sañse naan nga yaay jigéenu aljanna ñëpp nee nañu nga teral Victor Hugo nee man fa taxaw jàmbaar nga si jinan ku tijji école di leen jàngal di leen jox comportement yu baax mu ne tañ la suma bëggeelam ci man ber nañu bundal bundal sayda daw bu bëggal sayda raadatu si sekk say doom ñoo lay wayal ko wax ci moom dafay jafe ji ko yamu am moo kawe sëy nga bañ a signé sëy nga bu baa ngi tege sëy nga bu baa ngi tege tatagal ay kanam gërëm leen sant leen yaa Seyda ban discours nga ñu indil tey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نيجي سنتي الله سبحانه وتعالى لب مملك di julli ci yenent bi sallallahu alaihi wasallam mom min ñi indil diine islam bu mat bu matale tay luñu am rek dañ nan alhamdullilah bi ni'matil islaam kon ñu ngi sant yàlla bu baakha baakha baax waye di sant mbolo mi fi tew yeb damay wax ne bés bi ku fi tew rek Pastef moo la indi ndax bés bi dañoo toll ci di tabaski li ci des ay ñetti fan ñaari fan yàlla rek moo xam kon xelu jullit yépp tey mu ngi ci sunna boobu di idul adha waaye tanaaqul jafe muy oto oto tey jafe na circulation metti na waaye ak loolu yépp bàyyi nañu lépp ci ginnaaw ñëw toog kon kenn du yéen ñu ngi leen di tatagal di leen sargal di kontaan ci yéen di wane sunu mbégte di am nag lu ñu metti lool di ñaan yal ko fi yàlla jële muy corona ndax am bés toog ak say soppeek say xarit te mënoo gis seen kanam li metti na yal nañu yàlla musal ci maska yal nañu yàlla musal ci maska yal nañu tàggalakook maska ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp waaye nag dina am rek fu ñuy commencé loo gis rek dafa am commencement damay nuyu samay dëkkandoo waa Malika ñoom lay njëkk nuyu ndax bi ma ñëwee fii yàgg na te dañ ma jox seen bopp sargal ma fu ma egg tey ci Malika ñoom la bëgg nañ ma wóolu nañ ma wóolu école bi joxe fi seeni doom di rendre hommage nag sama délégué de quartier muy alin Diallo yal na ko yàlla yërëm di sàkku ci yéen ñaan moo doon suñu délégué yàlla dafa def mu nelaw temps yi waaye doomam a ngi nii ci kaw di wane ni kóllëre googu dara du ko dindi muy Sayid Diallo kon Sayid ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sama xaritu bopp muy soxna Ramata Sow lu ma nekk maak moom ba mu jeex takk day yenu ay kart di yóbbu ñëw naa maa loo soxla fan la ñu war a dem yóbbulal diw lël diw kon waa Malika kenn du yow yal na leen yàlla fay du ma fàtte mukk sama xaritu bopp nag ci Malika vraiment muy Émilie mbay maa ngi koy nuyu bu baax a baax yëkkati njabootam yëpp jox daara ji ak ñeneen ak ñeneen di nuyu bu baax président parent d'élève wala président bureau bi bureau parent d'élève yëpp maa ngi leen di nuyu parce liggéey bi yenn la bu ngeen indiwul woon fii seen doom duñu toog di wax lii kon yéen yéene moom liggéey bi kon ñu ngi leen di sargal ci seen bés di leen tatagal waaye itam dañ naan am na ñoo xam ne bu du woon ñoom liggéey bi du dox muy enseignant yi liggéeykat yi ñuy jàngale alquran ñiy jàngale français ñuy jàngale arabe ñoo boole seen doole ba ñu wane fii lu nit mën a gis xëj na bu doon man rek duma ko mën kon yal leen yàlla fay les enseignants al muallimun yal yàlla dëgëral seen taxawaay seen liggéey feeñ na di ndokkeel nag sama njaboot gi nga xam ne ñoo nekk ak man surtout dañoo boole lu metti daara neexul daara bokkul ak kër waaye ñu ngi ko maîtriser toog ak man di ma guddil di ma bëccëgal di jàng seen alxuraan di jàng seen français boole kook seen yar kon maa ngi leen di ndokkeel fu xale toog ba mokkal baqara ba naase daj na fa lu rëy te bu doon loolu rek nag ñu mën a wax mais ñoom dañ ko booleeg français ñii ngeen di gis nii am na ko toogoon fii bac la war a def kee toog faras ci yéene ubbi BFEM lay def ren jii ngeen ñaanal ko am na ci koo xam ne moom la jox léegi BFEM ñii yëpp BFEM la ñuy dàqante déwén te wàcc nañu alxuraan kon lool lu rëy la kon parents d'élèves yi kenn du yéen yéen ñi fi muñ lii di fi jox seen xaalis ba lii am gàcce ngaa laa may yéen yan na leen yàlla fay mais yan nañu jëriñoo ci xale yi mais itam may nuyu di gërëm samay anciens élèves ñi fi jànge woon ba génn fi ba nga xam ne tey jii góor ñi takk nañuy jabar ñenn ñi ba ami doom jigéen ñi ñëpp sëy nañu ba am njaboot yal yàlla barkeel ñooñ ñoo jiitu ci daara ji dëpp ñu nekk Dalifort ñu def benn bloc nag jàpp ci daara ji daara ji bu xësee xewle bàyyi nañ lépp seen poste du ko fekkee ña nekk extérieur ak ña nekk ci réew mi dañuy boole seen doole ba luy taxaw ci daara ji anciens élèves yooyu ñoo koy taxawal kon yàlla na leen yàlla fay kenn du ñoom mënoon nañ ne génn nañ fi jeex na mais dañ fi génn di jàppale école bi kon yal na leen yàlla gën a jàppale di ci jiital nag présidentu association bi muy Sayer Seck ma Sayer fi lay fanaan chaque année fi lay fanaan nekk ci liggéey bi mooy présidente moo jiite xale yi boole kook jaaja mbuub jaaja ñi koy sargal ndax daaw lañ ko bëggoon sargal jaaja mbuub damaa bëgg nga jóg taxaw ni ñu gis la may ma ko may ma ko rek daaw lañ la waroon jox sa diplôme mais sa diplôme d'honneur mais xaw ma fu diplôme yi nekkaat mais dinaa ko wax ba bañ lay joxaat sa diplôme xam naa bañ ko ranger fekk gisuñu ko gisaatuñu ko jaaja mbuub moo fi door baccalauréat fii ci daara ji xam nga ne loolu du benn at du ñaari at boole kook discipline moo gën a yaru ci daara ji boole ko dégg ndigal jaaja mbuub du wax ku nekk jardin fii ba am bac te mosoo fee dóor xale mosoo fee xeex kooku yaruwul yann la yàlla taxawu jaaj yërmande la am ci daara ji ak xale yépp mënuñu koo bañ a wax foog ñu sargal la jaaja sa diplôme indi woon nañ ko wër na directeur mais xamatuñu fu mu ne mee dinañ ko defaraat incha allah mais dañ koy seede ci kanamu mbooloo mi ak say woy jur yan yàlla defal la jàmm léegi pare na jàngam dem na université ñaanal leen ko léegi mu ngi def transitaire na ngeen ko ñaanal bu baax a baax kon loolu ndamu daara ji la daara ñii la bëgg am daara bëggul am fàqamaan yal yàlla dolli la teral baax na jërëjëf ci li ma may ci taxaw kon am na seen jigéen moom tamit daanaka dañ naan mooy moo doon présidente ba léegi daxam jëgu ci muy maam Dabiya Samb mu nga nee toog maam Dabiya Samb bu daara ji xewlee pendant trois mois dootul nekk sax këram dootu ko tal mu ngi ci lu ne mu ngi ci mobilisation mu ngi ci téléphone international ba dajale élèves yi bu ñu dajaloo tey ba def association grace à moom maam Dabiya Samb ku mu xam seeti na la jël na sa téléphone boole leen benn groupe whatsapp kon maam dam yaay ñu ngi lay nuyu di la sargal bu baax a baax waaye di nuyu sunu doom sunu xarit sunu wëllëre Oustaz Seyid lii aw ma payam xanaa ngeen ñaanalal ma ko yàlla awma ko daara ji bu xewlee bàyyi na këram ñaari fanu yàlla mu ngi fii démb ci raw fi la fanaan mu ngi ci njàngu xale yi di xool mu ngi ci animation yi moom moo ànd ak équipe ba mag baas yi yëpp ñoo ko def fi la fanaan ba bër set sayit fi nga ma taxawoo yal na la yàlla taxawu fu ko ëpp di nuyu di sargal sama borom kër oustaz Mouhamed Mbaye ndax dañ ne feccum liir bu neexee rek way jur yaa jàpp ca mbagg ma te comme sunu sunu <laughs> sunu borom kër mooy tey sunu way jur bu ñu xataloon wala mu fattañu lii duñ ko mën foo génn mu ne foo jëm foo jóge mu ne fan nga demoon du ko def bañ na ko ba buñ tolloo ci période yi daf maa ngi woo téléphone bàlla mu bàyyil ma audio mu ne xam naa sa situation bul ma tàggooti xam naa fi nga jëm ak li ngay dox bul ma tàggooti ndax loolu day jël temps liggéeyal sa liggéey kooku góor gu baax a ko mën mbay ñu ngi lay gërëm bu baax di ko sant di sant nag samay njabootu bopp Abibatu Mbay xam ngeen ko tey bare nag ku ñëw fii tey kartam moo ko yóbbu ànd ak nag délégation bu am solo di sama yaayu daara yi mooy daara mag ñi ñooy def délégation di yóbbu carte yi yal na leen yàlla fay di nuyu tamit sama beneen doom Mouhamed Mbay moom tamit ci liggéey bi lay nekk éducation bu xale yu yore lu ci gën a bare loxoom mu ngi ci di yu bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñooy daara yaay yi te am na ñu fi ñëw léegi si cité gendarmerie yore daara xam nga dañ fi am daara yoo xam ne du xale de mais daara 50 ans 60 ans ñooy jàng tey dinañ fi wane lu ñu mën ngeen gis macha allah yaay yooyu maa ngi leen di gërëm bu togg jotee ñu ne ñooy togg bu jënd jotee ñu ne ñooy jënd bu liggéey jotee ñu ne ñooy liggéey. boole kook nag lu ma taxaw ña ngi ci sama wet yal leen yàlla fay ci ndigalu defe naa ci njiitalu euh, ku ñu àndalati sax am satu Jóob waaw mooy yaayu daara foofu di ci cité gendarmerie ànd ak daara cité gendarmerie ak seen enseignant ak seeni élèves yal na yàlla taxaw leen kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal di nuyu bu baax di dalal bépp soppe bépp xarit bépp am di jàmm boo xam ne gisaguñu ko euh, di nuyu nag sunu doomu bopp xam ngeen ko Alaaji Cissé moom tamit nekkul sax dakaar waaye bés bii da koy jaral mu jóge fa mu nekk ca région Saint-Louis ñëw fanaan si dakaar pour rek mën a taxawee bés bii ji lu bàjjanam taxaw mu ngi ci wetam Alaaji yal yàlla taxaw ci say mbir man ñaan rek laa mën ci yéen mënuma leen a fay yal na leen la fay leen bu baax a baax euh, di nuyu nag sama rakk comme ni mu ko waxee soxna Ndey Fatou Fall moom tamit xat-xat yi mu nekkee xam naa ko tey bu jógee ñëw fii rek mbër la amee ay gan yu jóge Europe borom këram war a jóge Europe ak tabaski di jub si ci borom famille nga bàyyi yëpp tëj ko ñëw jóge parcelle ba fii kooku lu rëy la ndey faatu ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant yal na yàlla taxaw ci say mbir di nuyu waa Islam TV nag suñu télé bu bees boobu di nuyu Bokar di nuyu Alioune Badara euh, di leen sargal bu baax Islam TV bëgg naa yéen ñëpp nag ngeen abonné ci ku bëgg xam diine bu set bu wóor bu sell demal Islam TV di nga fa fekk ay boromi xam-xam yoo xam ne du ñu jóge ci lu yàlla wax ak lu yonentam wax dem leen YouTube rek ngeen bës Islam TV Sénégal di ngeen gis émission yi femmes musulmanes ak yeneen ak yeneen tey ñoo ñëw couvrir bës bi kon ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax a baax di nuyu bu baax njiit bi ko jiite muy euh, Ismaïla Ndiaye kon jëlal jërë jërë ngeen jëf yéen tamit. Euh, di nuyu nag koo xam ne sama xarit la sama genn wàll ngóone mbaw mële borom xol bu rafet bi ñun dañ doon ànd depuis xale depuis ñu am 13 ans 14 ans ak Ndeye Fatou loolu yàgg na kon lu yàgg rek dëgg la surtout mu rafet yal na leen yàlla fay waaye nag di nuyu kenn ci liggéey bi li tax jëkkewuma ko ñépp ko xam parents d'élèves yi enseignants yi muy monsieur Moussa jàll Moussa Diallo jógal nu gis la doo fi gan waaye il faut ñu gis la Moussa jàll moo tax yëgatuma coono école lu ne maa ci doon daw jaxaay daan ngeen gis may xëy jaxaay 6 heures du matin di ma fa fekk daan naa fanaan jaxaay mais depuis mu ñëw ci daara ji ba léegi defe naa ne jaxaay su ma fa matul semaine ci at bi yëpp ndax moo ma fa nekkal moo ma nekkal fii taxaw nag ni mu war a taxawee ci maandu te ci jub ci rafet xol ci yéene ma jàmm sa Moussa yal yàlla taxaw ci say mbir te defal la jàmm ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant xanaa rekk di ñaan di sàkku ci yenn ñaan ngeen ñaanalal ñu dafa am ay membre yu doon bokk ak ñun bés bii fii ak jaxaay te ñu wàññeeku ci jamono yi kenn ki muy soxna Fatou Mané Sakho nekkoon ku rëy ci daara ji moo doon dem rek la ceeb ci àll bi ay ton woo sama doom abi ko sa yaay dafa jàpp mais fekk ma bërëb sàngam nga jël ceeb bi indi booleeg enveloppe boppam ci daara ji kooku moo wàññeeku temps yi ngeen ñaanal ko bu baax a baax ak aadama may Mayga ak Awa may Mayga ñoom ñoo bokk benn yaay mais Adama Mayga ko jàppoon ci daara ji la dem na ba bi mu visité daara ji gis classe yu ñu karo léegul mu ne loolu moo ko jël en charge mooy indi karo karo daara ji en ah, jàll du yow la waxaloon temps yooyu la dese yal na ko yàlla yërëm kon nit ñi kenn du ñoom damay wax ne jullitu senegal kenn gënu leen yal leen yàlla fay gannaaw bu ñu leen waxee Maam Ba amul luñ ciy waxaat muy yaayu daara nekk marraine fii li muy def ci daara ji wax nañ leen ne keroog la ne daare ji ñaata lay fay ci ndox ñu ne ko temps mu ne moo ko yore boobaak léegi mu ngi jege 5 ans daara ji ndox mi yépp moo koy fay boo leen jékki-jékki dama gis rek muy indi équipe am équipe bu kat peinture bleu boobu ngeen di gis blanc moom moo jënd matériel am indi équipe am ñu liggéey mu fay leen yal yàlla fay ko kon yooyu yëpp ndeysaan ci ni'matul islam la alquran mu ngi noonu koko baye mu dem koko pousse mu dem loo loo ci def itam day dem rek kon damay wax ne nit ñi nañ noppalu ci alxuraan gi ñuy guerre alxuraan day dem ala kulli hal yuriduna li yudfiu nuurallahi bi afwahihim illa an yatimmu nuruhu walaw karihal kafirun benen bi mu ne walaw karihal mushrikun jalla jalaluhu neena dinañu bëgg nak yàq alxuraan ci façon bu ne ci seeni làmmiñ di wax rek nekk ci presse bi sëriñu daara baane nii moo def laa moo def lii daara yi baaxuñu dañoo salte dañoo teeñ dañoo ami góom rërërërër yàlla nee na sama daara ak alxuraan fa mu bëgg mu egg fa lay egg donte kon seen làmmiñ yaa ngi wax kon nañu bàyyi daara te xam ne daara yàllaa koy yore mhm, ah, mu ngoog mu ngoog macha allah macha allah

génneeñi fi man ku ko dëdd du di sën ma yow di ko xeex saa xol dina jeex dara dafa neex لا جلس ما شيخ نونغا دارا دو جو نونغا دارا دو بيو داي موي تو يو سيو ني نوي ني ماناو ايوه ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا ان يلا فايلن يو kon ñooñu rek laa bëgg ngeen ñaanal ma leen parce que séentu naa ko ci yéen jullit yu baax ngeen yu set ngeen ñaanal ma ñii nga xam ne dañ doon jàpp ci daara ji te tey ñu wàññeeku ñu def ci seen alal ku ci mel ni awa may ga Fatou Mané Sakho Adja Mariane Niang ngeen ñaanal leen bu loolu paasee di jéggalu ci wax ju bari ji maa ngi jéggalu bu baax waxu kontaante la loolu rek la maa ngi sant ñëpp vraiment di gërëm ñëpp képp ku fi toog ak ku yéen woon ñëw te mënoo ñëw ak lekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp kon xam naa aqulu qawli haza ah sama gore yi tedd yi macha allah sama gore yi ca kër ga nga xam ne ñoo yore internat bi ña ngay sang ña ngay defar ña ngay firi ña ngay létt ña ngay yedd ña ngay nax kenn du ñoom muy awa Seydi ak mami Sidibé ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant waaw waa Daara Kër Massar voilà cité gendarmerie Adja nuyu nañ la bu baax waaw dëgg la dëgg la kontaan nañu kontaan nañu kooku mooy yaayu daara cité gendarmerie Marie soxna soxna Amsatou Diop madame Sarr waa kay jërë ngeen jëf kon ñooñu waroon naa leen fàtte waaye gis nga xarit loolu lay jëriñ sama sœur nee na ma ak sa goro yi billaahi lii la xel di jëriñ kenn matul alkamaalu lillaahi ndey faatu yal na yàlla fay la kon sama goro yooyu kenn du ñoom yal leen yàlla fay te yanu daara dafa metti te ñu ngi koy yanu te dérangé wu leen yàlla fay kon xam naa maa ngi jégalu bu baax a baax di bàyyi liggéey bi mu continuer incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril ma sha allah takbir euh, yaay boy dafa def daa nga koo nattu muy liggéeyal lislaam démb dars fajar këram laa ko defee fii laa ma ko doon wax benn docteur médecin bu tudd Arrahman Assumayk donc dafa toxoo Koweït ñëw dëkk Afrique mu tuubloo onze millions personnes ci Afrique yu dugal ci lislam waaw maanaam dans su tey bu ko déglu gis nga kooku lim def tabax ay jàkk gas ay teen tabax ay hôpitaux ak ay centre islamique yar ay orphelin ñoom yaay ñi mel nii ci loolu leen yàlla nag mbokk yi ma jàpp tey xoolal juróomi xale yu jigéen yoo xam ne xale yu ndaw 16 ans 15 ans 14 ans 13 ans wala bu fekkee ne xaw ma seen as mais xam naa ne agriculture moom 19 ans moom. ak ku xool tey ndawi Sénégal xale yu jigéen ñi nga xool nii lan moo nekk seen dënn tey lan moo nekk seen xol téere yàlla alquran li yàlla ne.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 bii yàlla ne alxuraan bi su ko wàcce woon ci montagne yi xeer yi montagne yi danañ toj danañ màbb danañ naaw nekk pënd ak pusaay wa tilka al amsaalu borom bi ne maa ngi joxe misaal ci doomu aadama yi su ma wàccee woon alxuraan ci xeer yi dana toj maa ngi jox loolu misaal doomu aadama yi la àllam yatafakkaru ndax ñu xalaat lan moo tax ñu wàcce ci xol moo gën a tuuti te xol toju te buñ ko wàcce ci montagne mu toj wallah mbokk yi dama jàpp ne yaay mi toog fii de may laaj waa baax ma koy jiite ci xale yi mag yi bëgg ngeen yaay yéen du xoof ndax bëgg ngeen yaay allahu akbar yéen nag ñi mokkal alxuraan bëgg ngeen yaay yéen nag ndax bëgg ngeen yaay yéen caméraman yi yéen ñooy ci bëgg ngeen yaay yéen mbokk yi seetaan si ndax bëgg ngeen yaay ma doog a ñëw ci sama mbokk yi ndax bëgg ngeen yaay bëgg yaay bi yëkkati loxo waaw ku bëgg yaay ñaan naa la 1000 francs ndax yaay naan ataaya tey 1000 francs laa lay ñaan ku bëgg yaay ñaan naa la 1000 francs ndax yaay naan ataay tey ndax dafa mo juróomi xale la moo kàlloo alxuraan ñun ndaw ñi jàngay jëriñ suñu réew mi ëllëg ñooy yooni réew mi aywa jàngi jàngi jàngi nañ leen jàngi ñun ndaw ñi jàngay jëriñ suñu réew mi ëllëg ñooy yoore réew mi bajang saggan watna ni dunyla naulok, Bunyi dogal dunyla wong tekki woo dara xamoo jàngi jàngi nañ leen jàngi ñun ndaw ñi jàngay jëriñ suñu réew mi ëllëg ñooy yore réew mi ndaw lu jàngul doo jiite te doo àtte sa moroom lay jiite ngay liggéey mu lay forcé jàngi jàngi jàngi ñun ndaw ñi jàngay suñu réew mi ëllëg ñooy yore dawlu jàngul baase garam palas ngay mujje ñaani dërëm ngay dëkke dakki faste di dunde jangi jangi jangi nañ jangi ñun ndaw ñi jàngay jaariñu suñu réew mi ëllëg ñooy yoore ñàkk a jàng waral jeunesse bi di xëy war taxawalok dem sabar même liggéey duñ ci sawar jàngi jàngi jàngi nañ leen jàngi ñun ndaw ñi jàngay jariñ suñu réew mi ëllëg ñooy yore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 ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله العظيم إبراهيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيغنى نارا سأتلهم هم لقطه خم ماله

Oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax par anticipation rek waxaguma mënuma ñak diplôme diplôme brevet de fin d'études moyennes dafa nekk diplôme diplôme tu ayib la diplôme bu mag la. premier diplôme bi élève bi war a CFE F certificat de fin d'études élémentaires kon du hasard nous école c'est un complexe complexe là, parce que dañ arabe français di même anglais am même informatique

parents d'élèves de dégg ko invités yi dégg ko suñu aussi donc euh, c'est par anticipation rek la parce que diplôme bi Moko waral diplôme bi donc jàpp le complexe lañ complexe lañ am complexe Asma Bintou Aboubacar annexe malik. diplôme ngi am nañ fi ay diplôme yu bari ay diplôme fe ay diplôme arab kessé si am inshallah allah ay diplôme franco Arab, parce que am nañ ay candidat franco Arab, ño xamné diplôme franco Arab lañu def arab français inshallah allah merci beaucoup merci ah, directeur. انتهى ما شاء الله lislaam bi fii doon aw dundin